Euh, rawatina ak ci àddina alors Clédor euh, ça évolue un peu ñu ngi mhm. dégg réaction yi du côté de la coalition Diomaye président euh, mhm. comme d'ailleurs barki démb ni mu tàmbalee woon mhm. mais démb particulièrement dégg nañu euh, Guy yu Sagna li mu wax mais aussi am na yéenekaay yu rapporté Euh, ne Sonko euh, weddina lépp luy dialogue digganteem ak Macky Sall. et que mm. mi ngi réaffirmer justement que ni ci wetu askan wi lay des te intérêt askan wi dong moom moo ko ñor lan la ñu mun a jàpp si les dernières nouvelle concernant ce dialogue supposé entre euh, le président Macky Sall ak Ousmane Sonko. waaw xam nga Ousmane Sonko su ne bokkul ci dialogue wax na dëgg. coalition Diomaye bu ñu nee nekkuñu ci dialogue wax nañu dëgg parce que ñun li ñu xam ci dialogue mooy nga dajale présidence ay chapelle politique. Uh-huh. Euh, di tëgg dara. parce que dialogue bi mujj dañu dajale woon ñëpp pour Khalifa bokk ex exclure Ousmane Sonko loolu mooy dialogue bi mujj. ñu ñu tuddee dialogue dialogue amul. jaloog amul. Hmm. mais euh, comme ni ko paa waxee concertation fi mu nekk nii mënut ñàkk ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko mun ñàkk ñu waxtaan ak moom. bu ne bokkul dialogue ça veut dire que moom sàkkuwul hmm. wax ak kenn d'accord mais mënul tere nit ñi ñëw ci moom di sàkku ay garantie par exemple ku ni Macky Sall mi nga xam ne jeexal na hmm. euh, yitteem la war a doon mu sàkku ay garantie sàkku dal sàkku jàmm hmm. donc lépp lu ñu nas ci dëkk bi te amul onction wala wala wala wala euh, adhésion wu Ousmane Sonko lu jafey doxal lay doon ci wàllu politique lu jafey doxal lay doon ci wàllu politique donc loolu dàqul ay concertation mën a am ay consultation mën a am ay ndaw mën a dem pour am lu ñu dox seen diggante ak Ousmane Sonko mm-hmm. parce que loolu mënuñu ko tuddee dialogue mais peut-être ay pourparlers la yoo xam ne euh, peut-être sax euh, amagul forme euh, bi bi ñu bëgg mu am maanaam du doon lu mën a fës ci bopp nit ñi parce que ci ci ci bëtu nit ñi parce que quoi qu'on dise Ousmane Sonko dafa tënku mu ngi ci prison donc moom mënul sol dàllam dem ci kenn. waaw mais ñi ko tënk foofu mën nañu yabal seen ndaw ci moom. Hmm. mais loolu mënuñu ko tuddee dialogue. loolu ay lijjanti la rek. Hmm. parce que négociation négo euh, négociation. <laughs> Euh, mënuñu ñàkk wax ak moom parce que moom moo yore cëgal guy gi fi mu nekk nii. moom moo hmm. yore les cartes en main. parce que li posé problème ñëpp comme ni ñu ko fi waxee euh, sànq. c'est c'est c'est c'est la candidature de Diomaye qui est Euh, parce que Ousmane Sonko d'ailleurs ñetti candidat la amoon au moins euh, yoo xam ni mënoon na reporter votam ci moom moo tax mm-hmm. euh, maître Kabou Patrick kabu tàmm di wax en 2024 Sonko sera ou fera le président de la République mmh. donc loolu moo nekk problème bi gaa ñi am par rapport ak Ousmane Sonko mmh. donc mënuñu ñàkk wax ak moom léegi nag li nga xam ni mooy dessiné wu nii muy euh, loi d'amnistie bi nga xam ne tey mercredi. Mhm. danañ ci xam dara ça m'a tout l'air d'un mhm. préalable à des pourparlers okay. parce que de toute façon président Macky Sall mooy mu libérer tous les détenus politiques mhm. plutôt que au sortir d'élection euh, équipe gagnante bi libérer ces détenus politiques là parce que loolu mooy am parce que bu leen libéré wul bu ñu teniree élection yi ki gagné da leen di libérer. donc son bénéfice politique mooy comme que de toute façon ñii. dañuy génn dañuy <laughs> mais na leen génnee pour récupérer au moins ce bénéfice politique. parce que mënatul maintenir euh, euh, Sonko en prison. parce que y a mm. une pression internationale. Mm-hmm. yaa ngi gis Nations Unies tey di demande l'ouverture d'une enquête sur les personnes qui ont été qui ont alors qu'en y en a eu plus. Euh, ils n'ont mm-hmm. pas il y en a eu encore beaucoup plus ils n'ont pas levé le petit doigt mais yëpp ñu ngi braqué wu Sénégal. Euh, donc. Euh, Macky Sall qu'est-ce qui a changé. la wala c'est que processus boobu yëpp dafa waroon ab am un terme euh, ci élection yi. nga xam ne nit ñi dañu jëlaat dëkk bi def jooyantiwaat li ñu mën a jooyanti. ok mais bu ñu demee ba ci biir ñu bëgg a confisquer le pouvoir c'est un hmm. coup d'état. ok loolu communauté internationale non seulement dañuy impliqué wu. mais on va aller même sûrement vers des sanctions contre Macky Sall et son régime ay sanctions laa lay wax. Hmm. venant et des Nations Unies de l'Union européenne de la CEDEAO de partout parce que attitude de putsch la donc le fait de confisquer la volonté populaire. Hmm. léegi nga boole ko restriction de libertés individuelles et collectives parce que internet bi ñuy dagg ay liberté individuelle la. Hmm. Euh, droit de manifester ay liberté collective la yoo xam ne boo nee da ngay manifester ñu déployer ay gendarme ak ay policiers ñu dóorante di violence yi am vendredi c'est parce qu'on n'avait pas autorisé mais bu ñu autorisé woon yore qu'un grand rassemblement boo xam ni xëy na da di gêner mais entre un grand rassemblement qui exprime la volonté populaire et un pays sans dessus dessous fépp di tàkk di saxaar ñaari image yooyu je crois que président Macky daf ci war a tànn benn mm-hmm. donc bu tànnee l'image de chaos peut-être mën na ko yombalal layub coup d'état mm-hmm. euh, que mu tànn une image de démocrate parce que le le 23 mars euh, le 23 le 23 le 20 le 23 juin. 2011. <laughs> M23 ba muy euh, taxaw le 23 juin euh, li xew biir Dakar c'était l'exercice d'une liberté démocratique parce que dañ leen autorisé woon ñëw en masse manifester. Mhm. léegi bu fekkoon ni Abdoulaye Wade dafa choisiroon réprimer manifestation boobu dans la violence et dans le sang. kon dina am beaucoup de dégâts. Ouais. donc euh, ñaari euh, option yooyu la Macky Sall jàkkaar loolu soit mu bàyyi démocratie bi mu exercer wu respecter les libertés de manifestation. Mm. nit ñi wane seen bopp wane seen doole. Mm. wala mu xeex ak ñoom askan bi wane dooleem neneen comme ni xew vendredi. Mm. te lu mel noonu bu amee ñetti fan yu tegaloo je crois qu'il sera à genoux ou te loolu moom mooy ëpp intérêt fi mu nekk nii. ci jàmm Sénégal moo tax euh, waxtaan bi muy def. wala bi ñu koy prêter. Mhm. je crois que lu lu lu vraisemblable te lu yoon la. Mhm. parce que ci sens boobu la war a dem pour am apaisement. mais ñu bëri jàpp nañu ne euh, Sonko n'a rien à gagner en tout cas ci concertation yooyu d'accord nga ci loolu. non Sonko tey beaucoup de voix se sont se a tout à gagner ci ay concertation mais n'a rien à gagner sur un dialogue national. d'accord parce que dialogue national lañu ñu jàppee un deal. dialogue national la askan bi discrédité. jaloog national la état-major politique di discrédité. Mm. coalition Diomaye nee na demul jaloog national. Khalifa Sall nee na demul jaloog national. Thierno Alsane nee na demul jaloog national. Mm. ñëpp nee nañu Bougane ñoom ñëpp nee nañu demuñu na dialogue national. donc bi Macky Sall mujjee woote. voilà parce que dialogue bi Macky Sall woote. Mm. mais yow yaa ngi dem looy woote looy dialogue yow demal rek ba pare en plus. waaw donc euh, moom fi mu nekk nii warul am lenn lu muy lijjanti lu dul jàmm Sénégal. élection la ñu jëm moom moo aj élection yi amu ci droit moom moo bëgg a prolonger mandat au-delà du 2 avril ñii ñu ngi envisager ay euh, Mamadou Mame Diop wala armée wala gouvernement d'union yooyu yëpp du ay schéma élection la ñu war a dem ñu tànn njiitu réew ñu mm-hmm. am une nouvelle gouvernance parce que Sénégal dafa toll ci benn virage boo xam ne mm. euh, suñu bakkan lañ ci teg waruñ ko raté mm. parce que dëkku Afrique yëpp ñu ngi dog seen buumu jaam ñun par la voie démocratique lañ ko bëgg a def la buñ ñu ko xañ bu ñu dugal ci fitna wala ci tourmente donc loolu euh, président euh, président Ousmane Sonko a a gagné avec des pourparlers parce que tey jii bu ñëwee seet si ko ni ko ah dañu bëgg daal suñu gannaaw jàmm euh, nga bañ loo amee loo loo loo toppee Macky Sall par exemple. Mhm. moom dina teg ay conditions comme la conditions yi mooy ñu bàyyi détenu yi mm. ñu respecter calendrier électoral bi loolu nga xam ne ñun dañ koy xeex te amuñu ko boobu ba tey hmm. ñaatoon la ñu xeex pour libération ñoom Cheikh Omar Diagne ñoom Karim ñu tudd dëgg ñoom Ousmane Sonko libéré Sonko bi tey day ci stade yi ci clameur pour yooyu hmm. yëpp ñu ngi koy wax bu fekkee ni mën nañ ko obtenir par cette pression populaire et ce contexte là bi nga xam ne euh, euh, communauté internationale bi yëpp ñu ngi ñuy hmm. jàppale ci pression bi je crois que c'est à prendre loolu avantage la. donc mënuñu ko reprocher donc faut pas cracher ça, sur loolu c'est pas un deal. d'accord un deal mooy léegi dañu tëggaat élection yi léegi nii lay demee kii mooy bokk kii du bokk kii du bokk et cetera léegi ñu def ko en telle période après ñu ubbi gouvernement bi kii yore lii kii yore lii kii yore lii. Hmm. yooyu ci yooyu la ñu nekkul ñun dañu nekk ci ci ci ci enfin maa ngi wax euh, la première personne du pluriel sax <laughs> Sénégal je veux dire. Oui. dafa nekk ci contexte boo xam ne voilà dañu war a euh, respecter calendrier électoral bi comme ni ko institution internationale yi waxee mm. rétablissement du calendrier électoral donc ci loolu la ñu war a jublu élection yi am et puis mu jeex tout ce tout lii yëpp daal di féete boo mm. lu yomb la léegi lan mm. moo war a nekk attitude Sonko ci dam euh, d'amnistie bi ñuy wax parce que euh, quand même am na ñu jàpp ne su nanguwee loolu il aura trahi ndax y a beaucoup de morts yoo xam ni euh, euh, bu ñu leen dëxëñee ci loi d'amnistie boobu quand même dina am ñu ko mere Ousmane Sonko ndax ñi faatu ñi pratiquement ñu ci bëri xeexam la ñu génnoon di xeex ba ñàkk ci seen bakkan est-ce que tey jotul moom euh, peut-être foofu noonu mu leeral fa ni àndul ci loi d'amnistie bi wala ñi mu àndal en tout cas am ci une position très claire et très ferme. nañu def nag bokkul sax c'est-à-dire loi d'amnistie Ousmane Sonko mënu ci dara. d'accord parce que amul majorité assemblée nationale. parce que PDS ak APR ñoo lëkkaloo pour am majorité assemblée nationale. mais ñu ngi bëgg a wax ne Ousmane Sonko dafa ànd ci loi d'amnistie boobu. Euh, loolu mënuñ ci am lu ñu leer. parce que loi d'amnistie xamaguñu lu ci nekk. waaw mais bu fekkee ni loi d'amnistie bi dafa nar a amnistier. Euh, ñetti ñetti xale yi dee ak ñi dee mm. depuis deux mille vingt et un ba loolu est-ce que moralement Ousmane Sonko mën na ci ànd ñoo xam ni moom lañ doon xeexal. loolu mënut a nekk. Mm. bu fekkee ni loi d'amnistie bi day day laal ñiy bàyyi ñële. Euh, est-ce que loolu dina mën a nekk. Mm. donc xamaguñu lan moo nekk ci ci ci ci. yan fait le visé bi yan fait le mm-hmm. visé. donc encore une fois loolu Ousmane Sonko amu ci benn pouvoir. parce que pouvoir législatif la te. majorité bi mu constitué woon sax par l' intercoalition yeeyu wàllu mm. trahir nañ ko parce que taxawu taxawee na ne euh, wallu dem ànd ak APR donc wallu APR mm. ñoom ñoo am majorité à l' nationale ñoom bu ñu décidé mm. bu ñu décidé ni dañuy am amnistier Macky Sall ak ay mm-hmm. nitam mm-hmm. mais attention ce qui se passe est grave hein oui on a la majorité